tey bëgg wax nag faratay njàpp faratay njàpp la ne juróom ñaar la yow nag boo wàññi say boo njëkk a tudd yéene yéene mooy nga dogu ci joox faratay njàpp mi ngir yàlla loolu bu la neexee yéene ko bu la neexee itam yéene yëkkati am toj toj ma la taxoon di jàpp bu la neexee yéene koo yëkkati bu la neexee yéene daganlu lépp loo xam ne dañ koy aaye ku jàpput yow nga fas ko yéene man ci sa njàpp mi yéene jooju nag boo tolloo ca raxas kanam raxas bu jëkk ba foofa ngay teewloo yéene ji ndax raxas kanam mooy farata bi njëkk ci jëfi njàpp mi moo tax nag boo raxas kanam raxas bu jëkk foofu ngay teewloo yéene ji muy benn dafa njëkk wañu nag moom dalkun ragg ragg mooy bomb maanaam bu fekkee ne sa yaram amut ab góom mbaa dara kon faaw boo defee ndox da ngay bomb boole ci waaye boo raayee rek bàyyi baa nga xëpp rek ndox bàyyi du doy da caa teg itam fawrun gaaw dañ koy firee gaaw waaye jubluwuñ ci gaaw dañoo jublu sosole maanaam loo def te kele ca topp dañuy bañ nga def lee mel ne raxas kanam tàmbali waxtaan ba mu neex la mbaa di def leen ba mu neex la nga bëgg a jàll ci raxas loxo loolu boo ko defee tey ko rek mu dal yàqu di ba la yàlla bindee yéex booy jàpp mu yéex itam du wàññi dara ndegam rek loo def fekke la ca topp rek dal nay baax kon ñetti farata la waxagun yéene ak bomb gi muy ragg gi ak sësale gi tam tuddee ko fawru gaaw te cee teg raxas kanam muy ñeenteelu ci moom ni muy wàññee te fekk raxas kanam moom moo jëkk ci mboolem farata yi nga xam ne dañu koy jëf yu bokk ca yéen rek muy farata yi jëf raxas kanam moo ci jiitu bul fàtte nag ne boo tolloo ci raxas kanam raxas ba nga xam ne moom njëkk foofu ngay teewloo yéene ja bu ñu nee raxas ñetti yoon nag daañu leeral ne raxas boo raxas te mu doy set te mat rek ba ci sës ngëneel la ni ki boo raxasoon benn yoon rek te mu daj te set raxasu ñaareel ba ngëneel la raxasu ñetteel ba ngëneel la ba ko juróomeel mooy raxas loxo yi raxas loxo yi bu ëmb conc la tuuti dana ko wax léegi ñaari loxo yépp bu ci nekk nga raxas ko bu ëmb conc la tuuti farata la massa bopp nag mooy juróom benneel booy massa bopp bi da ngay dem dellu si dem ba nag mooy farata dellu si ba sunna la daañu ko wàññi ca sunna ya mu des benn muy raxas ñaari tànk ñi raxas ñaari tànk ñi farata la kon juróom ñaari farata yaa ngoog bu ñu nee raxas kanam farata la bul fàtte ne kanam gi am na guddaay am na yaatuwaay guddaay bi moo tàmbalee ca jëba fa kawar a baaxoo saxe fa kawar a baaxoo saxe ba ci sikkim bi mooy guddaay bi da tàmbalee nobbee wër ba ca nobbee nag mooy yaatuwaay bi na nga saxe ba matal loolu lépp bañ caa bàyyi dara dara bu say bët xóotee wala nga am ay ras-ras ci sab jë wala sa bakkan coppooral fa bakkan ba tiim ak sax boo ngebee ba saytuñ mel ni la yàlla bindee loolu lépp na nga ko nemmeeku raxas ko bu baax bañ caa bàyyi dara bu ñu nee itam raxas ñaari loxo yi farata la dañuy jàpp ne yem ci conc la képp képp dafa xaw a jafe kon na ngay dem ba ëmb conc la tuuti bañ yem ci conc la ba tey it bu ñu ne raxas ñaari tànk ñi farata la say boo dem ba xaw a ëmb dojar ya tuuti ndax ba tey jéema yem képp ci dojar ya mën naa mu indi la coono kon nga ëmb ko tuuti rek daa wax ne baaraami loxo yi ni ko yàlla bindee baaraam bu ne moroom ma dañoo teqalikoo soree kon nag nga xalil baaraam yi mooy diggante baaraam bu ne moroom ma nga nemmi ko ko raxas ko bañ caa bàyyi dara loolu warugar la am na sax ñu ko wàññi farata booy jàng ci di si xaar sëñ bi daa toppoon ak imaamul xaw fii wàññi xalil baaraami loxo yi muy farata ñu bari dañ koy wàññi warugar warugar mooy loo xam ne soo ko defut am bàkkaar ci ñàkk gaa def waaye du tee la nga doon def baax na bu ñu nee nag farata la moom boo ko bàyyee rek la nga doon def du baax ndax farata boo ci bàyyee benn la nga doon def day yàqoo ba tey it nee na sa kanam fu ca sax kawar mel na ci sikkim ba dañuy seet ba xam bu fekkee ne kawar ga bëriwut nga xam ne boo dee xool séen fa kawar ga saxe kon daañu war a yëngal kawar ga ba ndox ma jàll ba ca biir li biir waaye nag bu sikkim ba fattee kawar ga bari ba nga xamee ne boo dee xool doo séen fa kawar ga saxe kon du aajowoo nga di ko yëngal ba ndox ma dugg ca biir bu awalee sa loxo ca kaw rek ak raxas pat yi nga xam ne mooy lang rek ci sikkim ba mu daal di doy teqale boobu nag ñuy teqale sikkim bu fat bari kawar ak sikkim bu fattut bañ a bari kawar bu dee njàpp rek lay am atti bii waaye bu doon ci cangaayul farata moom fu kawar man di nekk mu fat ak mu ñàkk fat des ko war a yëngal ba ndox ma dugg ba ca biir bi biir su nay njàpp mook farata yi ñoo tolloo ba ci jëkk mooy booy tàmbalee njàpp nga raxas say loxo ñetti yoon ba ci cikku jare yi dañ ci gën a taamu nag mooy nga ber loxob ndeyjoor raxas ko ñetti yoon door a ñëw ber loxob càmmoñ raxas ko ñetti yoon bu ci ne ba fa ñuy takk montor ba fa ñuy takk jara teew nag boo boolee yaari loxo yépp raxas ko ñetti yoon tam mu baax boo boolee woon sax yaari loxo yépp raxas ko benn yoon tam tutee sunna si moom mat na dañ ne woon bopp bi boo ko dee massa da ngay dem dellu si dem ba nag moo nekk farata delloo si ba sunna la muy ñaar ak massa nopp yi massa nopp yi moom sunna la muy ñett dafa tegalewut sunna yi nañ tegaloo dawal ñi rek bàyyi gis nga gannaaw ba mu tuddee massa bopp bi ak massa nopp yi mu door a indi galaxdiku galaxdiku sunna la ci njàpp faraxdiku itam sunna la ci njàpp fiiru itam sunna la ci njàpp galax ni ko mooy nga seex ndox mi yëngal ko yàbbi ko loolu sunna la sarax ni ko mooy nga andi ndox ba mu jege sa bakkan nga ñoddi ko ci sag moom mu dugg ci biir fiiru nag mooy nga jàpp ci say bakkan mel na koy ñandu wal ndox moom mu génn yooyu lu ci nekk sunna la su fekkee dangaa woor nag nga bañ koo soril def ko ci bunt bi rek ci buntu gémmiñ gi ak buntu bakkan bi ndax bu rëccee jàll koor ga day dog su fekkee wóoroon nag ñu bëgg koy galaxndiku nga ñor di ko bu baax ba ndox ma sori ca biir gémmiñ ga booy saraxndiku nga ñor ndox ma bu baax ba mu sori ca biir bakkan ba toftale farata ji nag moo ci mujj toftale farata mooy ni alxuraan tegalee faxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ilal kaabayni nga tegalee noonu nga xam ne raxas kanam mooy jiitu raxas loxo kon na jiitu raxas loxo yoo caa topp raxas loxo yi mooy jiitu masaa bopp kon raxas loxo yi jiitu masaa bopp door a dikk masaa bopp itam mooy jiitu raxas tànk kon nga tegalee noonu alxuraan waxee ba tey sunna la kon doo wàññi juróom-ñaari sunna yi njàpp yi nga ne raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tikku jare yi bi ngay tàmbalee muy benn galax ndiku muy ñaar sarax ndiku muy ñett siiru muy ñeent delloo massa bopp bi bu ko defee muy juróom massa nopp yi muy juróom benn toftale faratay njàpp mi muy juróom ñaar daanañu wàññaale yeesal ndox mi yeesal ndox mi mooy as ndox mu yees def ci baaraam yi nga xam ne mooy massa nopp yi nga def ko nag bala ngaa massa nopp yi loolu boo ko wàññiwaalee kon mu juróom-ñetti sunna ngënee li njàpp yi fukk la ak benn bokk na ci ngënee li njàpp yi booy tàmbali njàpp nga wax bismillah bokk na ci itam fa ngay jàpp nekk fu laab nga xam ne amul sobe te defaruñ ko ngir def fa sobe bu doon wanag woo xam ne dañ koy defar ba jekk rek kenn demagu ci itam duñ bëgg nga jàppe fa ndax sobe nekk fu waaye sobe tax ñu defar ko dañoo bëgg booy jàpp nga def rek lu yem dégam yàlla yemalewul nit ñi am nañu seeni cër tuuti am nañu rëy am nañu seen yaram ñagas am na yu nooy kon kenn ku ne na seet rek lu yem ci ak cëram mu def ko te bañ a ëppal néewal ndox googu muy bañ ko yàq ngëneel la booy jàppee ci ndab lu ubbiku ni ki bool mbaa biñ waar bu féetale ndeyjoor loolu ngëneel la bu dee nag lu mel sat la mbaa baraada nga xam ne kenn du as kon mu féetale càmmooñ mooy gën a juboo daa wax ne kanam ak yaari loxo buñ ne dañ ko rax ñetti yoon it kat ni ma ko leerale woon baa ca tolloo raxas bu jëkk bi bu fekkee ne daj na te mat rek raxasu ñaareel ba ngëneel la bu ñetteel ba itam ngëneel la waaye raxas boo ci xam ne matul dajul nag ba sës ci moom du mën a ñàkk lu am ndeyjoor ak càmmooñ li ci ne sopp nañ nga njëkkee ndeyjoor mujjee càmmooñ bu dee ci loxo yi nga njëkkee ndeyjoor bu dee ci tànk yi nga njëkkee tànkum ndeyjoor socc ngëneel la ci njàpp li gën ci socc nag mooy bala ngaa jàpp ngay wut bant socc ba bañ yi set nga wax ni ko tuur door tàmbalee njàpp teewul nag boo bàyyee bay jàpp nga jël sa baaraam fompi ko bañ yi mbaa leneen lu ñagas ba tey baax na mën ngaa wuti boros boo xam ne boo yàkkamtee booy tàmbalee njàpp rek boros bañ yi nga wax ni ko tuur door tàmbalee njàpp daa waxoon ne toftale faratay njàpp mi sunna la léegi nag nga toftale sunna yi ñu tegaloo nañ war a tegaloo ba noppi itam dugg ci biir farata yi nañ ci war a duggee sunna bu ci nekk nekk fa war a nekk waaw kay loolu la wax ne ngëneel la sooy masaa sa bopp nga tàmbalee ko ci jëb yi fi kawar baaxoo saxe ba ca dox ga koñe bi ko waat nag ba ñëwaat ci jëb yi loolu ngëneel la ndax boo doon masaa bopp bi tàmbalee ko ci dox ga bu ñëwaat ci dox gi itam du ko tee baax ba tey baaraami tànk yi ni ko yàlla bindee dafa jege moom booy jàpp dañuy sopp rek diggante baaraam bu nekk moroom ma nga nemmi ko ko raxas ko waaye agul nag moom ci nekk warugar mbaa farata ci kaw nag muy ci jàpp ne bu doon sangu farata moom day war nga xalil baaraami tànk yi nam waree nga xalile ne baaraami loxo ya waaye bu dee jàpp daal moom xalil baaraami tànk yi ngëneel la rek agul ci warugar agul ci sunna booy raxas mbaa ngay masaa dañoo bëgg nga yem rek fa ñu la yemloo boo ko weesoo def lu ñu sib mel ne loxo yi dañ laa wutal fu mu tàmbalee ak fu mu yem muy nga ëmb cooñ ci ya tuuti boo ko ëmbee lu bari na kon mel ne dangaa wuti mbagg ya def nga lu ñu sib ba tey kanam gi dañ ko wutal ak guddaay ku yaatuwaay kon nag bu fekkee da ngaa jàll raxasaal lu bokk te loolu mbaa ba ngay masaa nga jàll ba masaawaal dox ga yooyu yëpp da nga def lu ñu sib nga dolli ci nag lim bañ la waxoon ba tey weesu ko moom dañ caa wóote am nañu ne yu araam la am nañu lu ñu sib la maanaam buñ la nee da ngay raxas kanam ak loxo yetti yoon yetti yoon yi moom mooy yemukaay bi bul ko weesu boo ko weesoo am nañu dañ koo sib am nañu ne day araam ba tey it masaa gi dañ ne woon booy masaa bopp da ngay dem rek muy farata nga dellu si muy sunna nga masaa nag lu ëpp loolu ba tey wóote nañ ci ndax dañ koo sib am dañ koo araamal dañ ne woon boo dee jàpp danga ko war a sësale du nangu da mel ni raxas sa kanam rek bàyyi ko di waxtaan daa ngay faj beneen soxla ba mu yàgg nga bëgg a jàll loolu boo ko defee njàpp mi day yàqu ndegam yaa ko tey su fekkee ne fàtte la moom lu yàgg-yàgg da ngay jàll rek da nga yemoon la nga defoon baax na mu des nag bu fekkee ne fàttewoo ko waaye da nga koo mënta sësale niki ndox ma nga yoroon tuuru nga war wutiwaat meneen ndox loolu moom dañ koy teqale bu fekkee ne wutal nga ndox moo xam ne mu doy la nattabluwoo ko da ngay jàpp yàgg nag mu tuuru nga war wutiwaat meneen kooku ba tey lu mu yàgg-yàgg la nga defoon du yàqu bu amaatee ndox da ngay jàll rek bu fekkoon ne nag da nga caa sàggan ndax ba ngay wut ndox da ngaa wut loo xam ne da nga doon nattable doy naa jàppe wala doyute jàppe ba ngay jàpp nag farul doy loolu kon ci sa càggante la kon moom bu amaatee ndox dañuy seet ba xam boobaak léegi yàgg na am yàggut bu fekkee ne yàgg na la nga defoon yàqu na nga tàmbaliwaat bu fekkee ne yàggut nag la nga defoon baax na nga sësale ca jàll bu fekkee nag yooyu jamono yow ci sa bopp magewoo ci at ndawoo ci at da ngaa digg doomu rek jamono ja nga nekk itam tàngut seddut dafa digg doomu rek kon cër ba nga mujj raxas su demee ba wow rek dañuy jàpp ne kon léegi yàgg na bu fekkee nag cër ba nga mujj raxas moom wowut ñu jàpp ne kon yàggut jotuñoo leeral nag bu fekkee yooyu tasewu ci ndax yëpp tase ci te mooy waa ji du mag du gone jamono ja tàngut seddut yooyu tase ci mën naa ñàkk dafa mel ne kon yooyu jamono dañuy takk yàgg ga ci aada rek buñ ko seetee ci aada mu yàgg ñu ne yàgg na buñ ko seetee ci aada yàggut ñu ne yàggut ndax am na ñoo xam ne sax doonte yooyu tase na ca it dañ koy takk rek ci yàggaayu aada nee na bu fekkee ba ngay jàpp da nga caa fàtte woon farata joo xam ne defoo ko nga yéex koo fàttaliku ba mu yàgg nag kooku moom bu fekkee defoo lu tëjum jàpp farata ja nga fàtte woon rek moom ngay def mu daal di baax du aajoo ngay defaat la ca topp di ko baamu déedéet jëmmi farata ja nga fàtte woon rek ngay def mel ne nga doon jàpp fàttee raxas sa loxob càmmooñ ba mu yàgg nga fàttaliku ko kon bu dikkee da ngay raxas rek loxob càmmooñ bi du aajowoo jàll ci massa bopp bi du aajowoo jàll ba ca tànk ya bu fekkee nag dangaa fàtte farata ci njàpp mi laata mu yàgg rek nga daal di koy fàttaliku kon boo defoon da nga fàtte woon kese yam ca mu baax waaye dañoo sopp nag boo defee loola nga jàll baamu la ci sësoon mel ne ko jàppan ba toll foofa mais ne misaal ma joxe woon léegi boo raxasee loxob càmmoñ bi nga fàtte woon nga jàll nag massa bopp ba jàll massa nopp yi jàll ba ci tànk yi baamuwaat ko saa yoo fàttee farata nag ci njàpp mi ba noppi nag dem julli gannaaw julli bi nga door a fàttaliku ne ah yow kat njàpp mi manqué woon na farata kon julli googu yàqu na ndax day mel na nga ko julli ci dul am njàpp sa farata mu manqué rek day mel ne defoo dara ba tey bu doon ragg cër boo xam ne farata la bàyyi ci digg boo xam ne tóowut it àtte bi benn la saa yu ko fàttalikoo rek te deful luy toñ njàpp di daal di ñëw ragg digg boobee waaye nag bu fekkee jotoon naa julli itam julli ga yàqu na bu fekkee ba ngay jàpp dafa am sunna soo ci bàyyi mel ni masa nopp mbaa galax ndiku mbaa sarax ndiku bàyyi sunna moom di yàq am jàpp bu fekkee jotoon ngaa julli itam julli ga baax na waaye nag bu fekkee xëy na nga téye sa njàpp mi ba defaat ci yeneen jaamu yàlla kon bëgg nañ nga dem defi sunna soosu ndax booy defaat yeneen jaamu yàlla fekk njàpp mi mat ay sunna ndax loolaa gën de bu fekkee ne sax njàpp mi yaa ngi bëgg dem ci wana wa mu toj kon du aajo ngay dem defi sunna soosu nga fàtte woon ba ngay jàpp yi nga xam ne ñoo toj njàpp la wañu ne mat na fukk juróom benn nee na saw bokk na ci yi toj njàpp génn gelaw ci buntu suuf bi itam bokk na ci yi toj njàpp salas am njokkale mi mu tudd nag mooy rek toj moo xam ne day génn ci ak wéradi ni ki saw wala gelawal wala xayta wala madiyu wala waddiyu wala maniyu yàlla na too kooka muy génn ci ak wéradi nga xam ne du mën a takk na muy génne kooku dañuy seet bu fekkee ne ku xaaj jamonoom xaaj ba yépp noonu la koy dikkee mbaa la ëpp ci jamonoom noonu la koy dikkee mbaa boog jamonoom jëpp jëpp noonu la koy dikkee yet yi li ca mën am rek kon du tojati njàpp mën nay jàpp sax muy génn su fekkee ne nag la gën a néew ci jamonoom la koy dikkalee noona su boobaa lay toj njàpp xayta fekkee dafa génn ci moom te ànd ak wër kon dana tooñ jàpp su fekkee wërëj la wax nañ ko léegi mag yu ndox mu weex la muy génne ci sawukaayu góor gi bu fekkee ne góor gi day fo ak jigéen wala muy xalaat ci xelam joteeg góor ak jigéen baa muy xool jigéen xool bu yàgg-yàgg mën naa am ndox mu weex te bañ a far génne ca sawukaay ba loolu moo tudd mabiyu moom dana toj jàpp bu fekkee nekkul am njokkale bu fekkee dafa nekk am njokkale moom waxan nañ ko léegi te moom nag yoon dafa santaane ku génn ci moom rek na raxas sawukaay ba fa mu saxe ba fa mu yem ak doon ci sax taqu ca moom solo la fu mu taq rek ñu war koo raxas ni ki saw baa leneen waaye nag dañ ci boole jëmmi bantub sawukaay bi bu fekkee taqu ca itam na ko raxas fa mu saxe ba fa mu yem dañu ko digal rek te xamunu lu tax ñu digal lu ko wadi moom day nekk ndox mu weex te far li ci ëpp nag day tax mu génne ko mooy fekkee daa wara di woon ba tane deretam xaw a manqué mbaa mu amee ab sedd mbaa mu yenoon lu diis mbaa mu seere ay fani fan demu ci wanaw yooyu daal mën naa tax su sawee ba ci mujjug saw ma ndox mu weex te far génn mën naa am nag mu dem bay jàpp mbaa mu jàpp ba noppi mu door a génn kooku bokk na ci toj jàpp su fekkee ne du wëradi bu dee wëradi ne ñu waxe woon ci gannaaw du tojati jàpp lépp lu ko tàggalee sagoom it bu sago sa dellusee see boomu jàppaat ndax mën naa am ba mu tàggoo sagoom mu def fa li toj jàpp te yëgu ko yooyu nag bokk na ca nelaw yu diis nelaw yu diis mooy nelaw yoo xam ne la mu yor ci loxoom bu rotee du ko yëg bu kenn duggee mbaa mu génn du ko yëg bu kenn waxee kàddu gu ko mu du ko yëg nelaw yu mel noonu moom bokk na ci yi tax mu war a jàppaat ba tey màndi moo xam dafa màndee ci lu araam ni ki sàngara mbaa mu màndee ci lu dagan ni ki naan soow mu am doole rek daal tàggoog sagoom yépp rek say boo mu jàppaat wala xëm xëmit day taxa tàggoog sago wala say ko ak ndox jàppee mu say bu say ma jeexee yépp rek say boo mu jàppaat ndax tàggoon ak sagoom góor ba jigéen ko ci xam ne jàpp na ba noppi laal moroom ma te ba mu koy laal bëgg bànneex a tax mu di ko laal kooku moom njàpp ma toj na moo xam am na bànneex ba mu bëggan moo xam amu ko ca ba tey bu fekkee jëmmi laal ga jublu ci woon bànneex waaye far na ci am bànneex moom it dana toj mu des nag benn rek mooy laal ga jublu ci woon bànneex te itam amu ko ca kon moom jàpp ma du toj mel rek bi foonub tàggoo mbaa foonub yërmande kon nag kenn ci ñoom ñaar laal moroom ma ak kenn ci ñoom ñaar foon moroom ma ñoo bokk àtte boobu nga tudd léegi laal gi ak foon nga ñoo bokk àtte ba mu des nag foonub gémmiñ foonub gémmiñ moom dañuy jàpp ne li ci ëpp ka koy def bànneex la ciy jublu ba dañuy wax ne foonu gémmiñ moom faw day toj jàpp ma jigéen bu laalee sawukaayam dañ caa wóote ndax am ñu wax ne ak nu mu ko mën di laale du toj am ñu ne nu mu ko mën di laale rek toj na am ñu ne bu lonkalee baaraamam ci biir mbaa mu ngëpp ca kon lay toj waaye bu ko deful lu toj loolu nag ci la ànd moom mii ba tey loolu lañ jàngoon ci aljawharun nafis góor bu laalee ab sawukaayam te muy sawukaay boppam bu doon sawukaayu jaabur moom laal ko du tax am jàppam toj te it muy sawukaay bi taq ci moom bu daggan dal fee mu laal ko foofa du toj ba tey mu laal ci jëmm ja bu laaloon ci kaw silib wala ci kaw tubéy ba tey du toj te it mu laale ko li xong ci baaraam yi mbaa weti baaraam yi mbaa li xong ci ténk yi mbaa wet ténk yi waaye bu ko laale woon feneen tam du toj koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba ameem jàpp wëlbatiku nag wax mbaa mu def lu tax ñu ne moom génn ci lislaam kooku loolee mu wax mbaa mu def ko bañ ne génn ci lislaam yàq na njàpp ma biñ ko waaroon ba mu tuub ñëwaat ci lislaam it day jàppaat rek waaye mooma njàpp moom yàqu na xayta moo xam góor la moo xam jigéen la su génnee ci moom te yéesuwul bunt ba rek bu ko neexee fopp ko rek bàyyi te bañ koo raxas muy góor muy jigéen